Sport TV et le Babo Show l'actualité en continu ak tey dañu fas voir waxtaanee donc Pape Alassane Gueye mais nga xam retour maintenant c'est acté wax ci ki donc également Habib Beye ban joueur lay tàgge ak également qui nga Julian Alvarez waa Real moom la ñu dire jël pour mu daal faté entre guillemets qui euh, dit Kylian Mbappé laata boobu nag le duel de titan wàllum box qui nga Francis Ngannou war qui daje ki Tyson Fury Tyson Fury nee na ko ah, man dama koy daal di kawote ci euh, fukk juróom round rek ma daal di koy kawote loolu daal la euh, wax ki nga Francis Ngannou Mike Tyson moo dali daal euh, ah, li nga xam moy dem nak ci championnat Sénégal ah, day tambalé le 28 bi ah, lay tàmbale incha samedi. Teungueth FC jamono fatik lay don FC US Gorée Jambar Ice Speaking, West Wakam, Casa Linger, Saint euh, li nga Stade de Mbour ak Génération Foot Dakar Sakaker, cœur Ligue 2 sénégalaise Thiès FC lay ak Oslo Demba Diop AS Douane AGEL NGB Duke Major, Walidan Seneps Excellence HLM Amitié FC RSIO, ak de Louga James si également euh, le week-end de feu wala a tàmbali hein. donc incha rabi dem nga xam classico bi Barça ak ñi di Real Madrid ñi nga xam également donc Manchester City Manchester United lundi inshallah rabbi ñu wax kan moy nek le Ballon d'Or Lionel Messi grandissime favori stade bi nak di stade bu donc euh, Camp Nou mom nak gay yi seen laata moo ah, donc benen salle bi nga fofu accueillir fi mu ne Barça nañ stade bi dañ ko fas ben def ben mu ngok ben voilà ben drapeau bu ngand bo xamné ay nit ñi former comme une koy défé hein ah, fas ci yëngal bu baaxa baax stade bi ki nak nga xam moy Christopher Nkunku bonne nouvelle pour Chelsea Chelsea qui nga mën donc Mauricio Pochettino nee na léegi aussi il est sur la bonne route bientôt bientôt ngeen daal di koy gisaat moom nga blessure bu metti Moko, ko malheureusement également pour Arsenal qui mooy donc Gabriel Jesus de feuillet avec douleur musculaire de jouer match bi di hein ah wala bok sax ñaari match on ne sait pas mais minimum ben match de ko jouer Thomas Partey également momit de femme am gagne gaañu boo tax né ñom ñaar dal fini dinañ manqué ñi nga xam donc Arsenal de qui a mooy donc Michael Arteta qui a donc Manchester City avec Pep Guardiola ne mom nak néna nga xam Manchester United sen derby bi nar a métti ndax Onana keroog dafa japp penalty et que baxna pour confiance néna nak ah, ñing koy critiquer mais euh, qui joueur bu mu même même entraîneur nga soog championnat bés nga tolof tolof Manuel Neuer également le retour de Manuel Neuer le mur de Berlin du Bayern de Munich de la Nationalmannschaft gannaaw bi nga xam ne nag moom wéram dafa xawoon a jël tàng fi day pour d'aller di jël en tout cas moom ak ñi nga xam Stegen Allemagne nan nañu am concurrence bu métti métti kii également Joao Félix Mondal, actuellement ñi nga xam de nag donc Atlético Madrid dañuy ñaan mu def saison bu baax ngir ñu mën a yokku mën ko jaay lu cher cher cher wa FC Barcelone Barcelone mi nga qui ko déjà affecté également également Robert Lewandowski Momit il devrait être titulaire médecin nak jox nañ ko mais nak dañ ne diggante cinq ans maximum lo mën jouer joué mooy naam juróom benn fukk ah, ba juróom fukki simili rek la mën jouer joué waru ko dépassé mais également Alfonso Davies le l'arrière latéral du Bayern Munich mon waa euh, Real Madrid la Casablanca moom lañ def une priorité en défense parce que yapp nañ xam mooy Boy Mendy ko nga xam mom dal daal dafa ne woon day dem jouer pour euh, France hein ba légui nag mu nek ay tolof tolof mom dal fini Alfonso Davies lañ bëgg indi mu jël couloir euh, gauche bi mais également le

Julian Alvarez bi nga xam ne gars yi waa Real tamit dañ ko def priorité nee fi ne ni daal ñoom daal ñi ngi commencé jiixi jaaxa mook Mbappé ah fi mu ni nii ñoom daal Real ñi ngi commencé xalat digënté Mbappé ki même bu fekkee né Mbappé mo nek option mais Julián Alvarez bi ko ko am am lu reuy Pape Alassane neex mën football gay bientôt de retour digënté le 9 ba le 10 décembre week-end lay daal di dellu si loolu daal la ñu le Focéen hein, déenekaay boobu di le Focéen daal di pour le retour donc de l'enfant prodige du Sénégal Pape Alassane neex Mon mën football gay bi nga xamné le Sénégal a besoin de lui surtout bu ñëwee milieu de terrain gauche bi nga xamné Sénégal war na ko mën a am bi bi dafa nekk instant yi dafa nek di progresser nee len boy bi mo gëna progresser ci suñu équipe nationale suñu milieu de terrain jamono ji Pape Matar Sarr mi ngi yegg si nak nànk mais également Habib Beye moom tàgg joueur bu nek Paris Saint-Germain nee jamono ji boy bi avec ou sans ballon il est extraordinaire il est stratosphérique actuellement moy le patron du milieu de terrain du Paris Saint-Germain waxul kenen ku dul la pépite de 17 ans formé par le Paris Saint-Germain muy Warren Zaire Emery di nga xamné actuellement gars yi ah, bi passé mom lañ jox meilleur of the match ci Ligue des Champions yi boy il est excellent dafa mën football te de nee bu jouer carrière am du côté du Parc des Princes parce qu'il faut lañ ko il a témoigné son amour pour le Paris Saint-Germain gars yi li ma nekkoon ak information ñu c'est toujours un plaisir de vous servir Willing like on avance ensemble dans la magie des e de Baba Show bu baaxee ci vous la bu le ci ñu la gars yi Game. Jeff.